ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biir réew a a man li ma gëm mooy alxuraan moo war a nekk ci kaw Sénégal man damaa gëm ni c'est pas normal ñoom président boo xamante ni il est chrétien muy wàcc ay constitution te bible nekk fi c'est pas normal ñoom président boo xamante ni il est musulman tudd Macky Sall wala mu tudd Ousmane Sonko wala wala sa Seck muy wàcc leneen lu dul alxuraan c'est pas normal c'est que nax bi ñu nëkk nax mooy loolu c'est pas normal nga nekk musulman te doo waat ci alxuraan bi képp ku bëgg toog si réew bi da nga war di waat ci a fexe ba constitution Sénégal méngoo ak suñu diine yi ak suñuy valeur suñu combat loolu loolu moo loolu nag imam bi nag loolu doon discours loolu doon wax mooy li ñu jàppoon lañ jàppee euh, Mamadou Mamadou euh, Camara bi mooy wax ni mi ngi pavillon spécial am poche ñu opéré ko encore opéré ko opéré ko deux fois mu ngi foofu noonu toog tant que nii moom feebaru fois am lu nekk sonn trop donc loolu la. léegi nag malheureusement booy wax des musulmans comme yow ñi woote seen bopp jullit ñoom ñoo jug pour xeex la xeexuñ la parce que dañ la contrôler mais dañoo xamut li ngay wax comprendre ni islam dafa programme politique la islam politique la dafa am système boo da ko teg ci wàllu justice am teg ko ci wàllu lépp islam islam loolu tubaab loolu lañ copier teg ko dindi lépp luy loolu mooy laïcité bii nii te laïcité boobu la xeex mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion ñun dañ koy xeex ñun suñu xeex loolu kese la tout donc kon moo xam catholique nga moo xam musulman nga boo sàgganee ba yow tey sa diine ñu jël ko def mu nekk deuxième position bi c'est pas normal parce que ngëm-ngëm mooy jiitu mu la chaque fois ne ngëm-ngëm mooy jiitu parce que gisuma kenn ku dee ñu ne boo dee dañu lay laaj sa bàmmeel quels sont les quatre points cardinaux quels sont les secrets d'état yooyu noonu donc kon yàlla mënul bind yonentam yi jox leen ay téere yónni leen ci nitam yi ba pare ñu ne non nit yeneen nit xalaat léegi dañuy topp leneen lu dul yàlla yónni loolu mooy suñu échec combat yi suñu loolu la ko fekk ñun loolu mooy ngeen si biir réew mi si biir réew da si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ